galaay waaw nag man vraiment bëggoon ñu waxtaan wax dëgg yàlla nag hmm. xam nga yow sama nit a sama xarit nga yàlla def na ko de maa ngi yow mënumaa wax sax kañ la woon ndax yàgg du démb kon nag am na loo xam ne warul nekk suñu diggante ah. parce que lii la dal nii métti na ma ba ci kanam yàlla saa yu ma wéeteeg saa bopp rek mu ñëw saa xel rek ma am lu ma métti lool man la te nag galaay sëñ Goundou mii yaa tax ma xam ko. Mm-hmm. te am na loo xamante ni daal wax dëgg yàlla seetlu naa ko ba seetlu ñun ñu ñàkk fayda lañu. Mm-hmm. te juguñu suñu bopp. Mm-hmm. fii la benn waay ñëw mooy seen kooka. ki la boole woon ak sëñ Goundou. borom ceeb ba borom boole la moom dalay leer ne boole la ak moom. mu ne ko fuuf bala. waa mairie bi ñëw fii jox ma enveloppe cent mille francs mu saw ma léegi nag loolu du sunu ñàkk fayda. te moom mu yor xaalisam bu bëri def ci poosam di faji soxlaam ñun daal ñu toogee nii rek ni tam leex te ba pare topp ci ginnaawam rek naan te yow a yow a yow a goo xam ni defaluñu dara dañ waxante dëgg nag. Ah, li nga wax day jawaay dëgguwul ah. nag du doon mukk paxi nopp di dugg ci paxi bakkan. mukk ko. ndax xanaa xam ne expression day wax. waaw man fee laa daan toog. dëgg la li ma indi fii xam na jël naa samay décision. loolu de kii ceebuma ko woon. jël naa samay décision. Ah, ndax sëñ bi dañuy bëgg a rey te xam nga dégg. Uh-huh. warta rob mukk paxe nopp te dugg ci paxe ba mukk mukk te sëñ bi. Hmm. nooy fanaan. waaw wax ci mi wax naan day am ay aras ak kursi yu loolu gisuma ko ndax guddi gi day wat sax ba fajar. kon kay man teet teet ñi may dégg ma yaakaar ne bu ma fanaanee fii kii ya. bu ma fanaanee fii kii ya. mooy vocal mooy vocal noonu day vocal rek. mais xam nga ni Serigne Serigne su baax si. waaw ah. meluñu nii. te Serigne su baax sànq ci dëkk bi de. kenn sa ñu baax ñaa ngi ci réew mi mm-hmm. guddi gi dañuy fas yéene jaamu yàlla ba ba set te ni ñu ñaanaale moom day whatsapp ba ba naan maa nga aras ndekete mi ngi whatsapp moom mooy moom mooy wakkaan noonu ba fayal groupe yu mu bokk bari waaw am na groupe bu ñuy wax non waaw ma nga fa ma nga fa xale tatouage am na sëriñam bokk waaw yow nga yaakaar ni kooku ci sëriñ su baax si la bokk eh, sëriñ su baax si nga xam ne dañuy fanaan jaamu yàlla ba ba set ah ak bi ñu aar saa waaye xam jóg ci lii nag. am naa ci am na ci pexe. ma maa ngay taaba taaba ji te jox lépp de. ay ja bi maa la bañ waaye maa la bañ. maa ngi ci tàmm rek tàmm rek. gàllaay kii kii xanaa bi mu fi mësoon a ñëw fii. Ah, te ànd ak sëñ bi. Ah. booba la gën a tekkee. yow. waaw moom lan la rek la daan daan na bay ñaari tool. Ah, dëgg la ñaari tool. tool yoo xam ne de hectare hectare ga mu mat ay ay sept sept hectares da ko daan bay. galaay bi ah. ñaar sept hectares boo ko boolee muy. Ah. quatorze muy quatorze. Ah. kii daan daan bay quatorze hectares ci ci ci ci ciw at. te moom doomu la yow kenn daaw ko jàppale. man man mii di wax ak yow su ma demee ca xam nga lan moo fa saa njariña lekk. yekkalal kay nga may wax waaye galaay mi lal lal ko nii ba mu kii eh, kay eh, eh, ah, am mu sedd ah ndox mu sedd am ndox mu sedd ah, ah. ah mantu du defaroon na ndox mu sedd xaaral xaaral bu ñëwee xool ko galaay ñii xamuñu xamuñu wa maa la xam ay ay galaay moom si weñ bu njëkk bi la bokk weñ yu dëgër yooyu galaay yaa ngi ba moteur pompe ba faa faanee waaw waaw waaw ndeysaan day yéeg ba ca kaw uh-huh. dugg ca biir mbànd ga uh-huh. ma naan gàllaay c'est fini uh-huh. réer na keroog la ma ko jëmbee gis rek nam ma ba tey ji ndeysaan yàlla def ma loolu man dëmm laa woon de yi fi dëmm rek laa faat naay. maama Deme faat naay. maama yaay ponkel mi. waxal loolu ca kaw. sëñ bi nam na astafurlah. bi bëgg naa la ay namu naa la. ñoo ko namu. yaay si sunu lépp li sunu lépp. wallaay wallaay dëgg la. borom jigéen ñu la. Mhm. waaye heureusement ay. bon monsieur Ndund il est homme. grand coow. incha allah jërëjëf bii laa ko ñaan ci aras. bii ah demoon nga aras. waaw maa ngi aras. yaa ngi woon ca groupe yi xam naa. loolu wér la. ca laa ca laa yëg yëpp. waaw ca laa ne daal. ñi nga xam ne bii xoolee na ko dem ba bëgg jéem. da ngeen ca déglu. ñu daal ko wax. lu mu wax dëgg la. dëgg la maa ko barkeel dëgg la. maa ko barkeel lu rafet la. lépp loo gisee. ndax de daal xam naa nag. <laughs> naa <laughs> ne fii yee gën a fii yee. tey bési benn la. ah man kay at ne loolu rek la.